aousubillahi min asheytaani rajim bismillahi arrahmaani rahim euh, mbokk yu tedd yi ñuy seetaan ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di am mbégte ci dellusi si gi ñuy dellu siwaat ci programme yi nga xam ne ni mooy am ci yoonu murit tey jii nag ñu ngi daaru salaam tey jii di euh, bésub àllarba ñaar fukki fan ci zul maanaam ci diggu tabaski dëppook fanweeri fan ci weeru juin ñu ngi fii ci Darou Salaam ci màggal gi nga xamee ne ni moom lañuy defal Cheikhul Khadim muy ngan gi mu gane si woon Darou Salaam te jamono te te taarix di ko taarixal booba ba tey fii nu nekk nag mooy kër sëriñ Maxtaar Mbàkke moom sëñ Mbàkkeem sëñ Mouhamadul Mamoun sëñ Modou sëñ di ki njëkk a wuutu maam Cheikh doon xalifa Darou Salaam moom Darou Salaam tey ji ñu ñëw ci kenn ci waa këram mi ko xamee ne nii ku sagal yoonu murit la ku sagal daaru salaam la di koo xamee tamit mën nañoo wax ne li Serigne Touba doon wax naan da ngeen di fexe ba mënal seen bopp ndax bu ngeen ko defut ku leen wërta mënal moo leen di mënal te bu leen mënalee da leen di sañal loolu nag ñu war a waxtaan ak moom tey ji seq ab jotaay ngir baaxe ko mbokki jullit yi nga xamee ne nii ñu ngi béggee daaru salaam ak di béggee yoonu murit Mbàkke ñu ngi lay ziar bu baax a baax. asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf sëriñ Cheikh Samb ñoo ngi nuyu mboole mbokki jullit yépp di nuyu mboolem mbokki taalib yëpp di jiital ci nuyoo bi sëriñ Muntaxal Bachir bu fi nekkal sëriñ Touba di ko ñaanal yàlla sàmm ko yàlla wéral ko lim yéen ci liggéeyu Serigne Touba bi mu def ci la ko yaakaar jaam ñëpp di leen nuyu seen teewaay bu rafet ak seen liggéey bu rafet bi ngeen di amal ci islaam ak atti Serigne Touba yi atti Serigne yi nag tey ji benn la ci di atum maam Cheikh Anta di bi nga xam ne di Seexul Xadiim bàyyi ko ci tukki bu tedd boobu yàlla dogal na mu laaj subhaanahu wa taala su may dellu naka laay def bi mu ubbee alxuraanul karim yam ci wallaahu yad'u ilaa daaril islaam wa yahdi man yashaa mu daal di xam ne ko kon yàlla moo ko yebal daaru salaam ci la waxoon maam Saxante ni ko dama toog Daaru Salaam néeg ma fa fépp foo mën a foo may dégg rek xamal dama faa jaar waaye sama ñibbise yàlla moo ma ko dëgal ni ambi bi kat naa ko tekkee foofu ci Daaru Salaam loolu it bindaan na lu dëggal loolu ndax bi mu egsee fii ci la wax ne alhamdulilahi ala qudoomi laha si daari bi laa kuloomi kon loolee di bu ñuy fàttaliku di bisu taarixul islaam di bis bu mag ci yoonu murit mooy waral saa bu amee mbokki taalibi Sëriñ Tuubaa yëpp mbokki murit yépp mbokki jullit ñépp lu waaye mën a jàpp bis bi daf lay jaral nga bàyyi ko ngir teew si réew boo demee Amérique tey nii lañ koy defee yàlla dogal na boo demee France nii koy defee Italie nii lañ koy defee mbooleem mën nga ne àdduna bépp bis boobee nag yàlla dogal na maam seexante laaj laaj siyaare Sëriñ Tuubaa bés Sëriñ tubaa digal ko ko ne ko bés bi fu mu la mën a fekk ci àdduna nanga ma ci santal sama subhaana fa Daaru mu mel ne noonu mu diglee màggal Tuubaa noonu la diglee màggal Daaru Salaam mooy ñaari bés yi nga xam ne moo jógee ci làmb bi Sëriñ Tuubaa beneen bu mën a doon nag dañ koy def di ci dabu ak di ci sàkku ngërëmul Sëriñ Tuubaa waaye ñaari bisi rek la wax ci làmmiñu boppam loole nag mooy waral saa bu ñëwee mbokki jullit yëpp daje fii li ciy jiitu mooy alxuraanul karim juróomi fan yoo xam ne bis bu nekk dañuy jàng alxuraan mboolem daara yi nga xam ne yépp yu mag lañ ci yoon wi ak ci islaam ñu xam leen li ci ëpp dañ fi teew si ñu teew suul it ñuy jàng seeni lim ca fa ñu nekk ñu di ko bind ba ñaare li ci ëpp dañ fi romb fukki junne kaamil yu tegal loolu it mën nga ne la ko tàmbali woon mooy maam Seex dafa wax ne ki koy defal kat la jiitu ci bëggam ginnaaw al yàlla yonent mooy alxuraan yàlla dogal na wax nañ ni an moomee sëriñ Massamba moo ko jiitu woon muy dox ba nii kon nag bésub sant la ndax la ko maam sant waxoon rek boo delluwaatul day senegal li ëpp mën nañu dem sawara loolu waxi seexante la woon ci sëñ Tuubaa wax nañ ne ba mu fekkee Gabon da ko ne ah fu neex jàmm yàlla di mu ngi nii man dama xeme moon sax des fi di fi jaamu yàlla mu ne ko mbàkki boo ko defee dana ñaaw ndax boo ko defee Sénégal ñëpp sawar ñu ëpp dañ dem sawar di wax ak sëriñ Tuubaa ba sëriñ bi nangul ko xamal ko ne ko liggéey bi nag am na lu ci des des na juróomi weer waaye juróomi weer yooyu dinaa la ko rafaatal nga àggale ko mu ne ko mbàkke bu ëppoon loolu sax Mbàkke am naa yéene yi noo ko bëgg ma defe ko noonu mu ne ko mu ne tekk ba yàgg mu ne ko waaye sama boroom defal na ko juróomi at mooy dem ak sa góom gi ngay dégg yàlla dogal na mboolem xasaayid yi fa sëñ bi jotoon a bind mu nekkoon ci ay gaal xawoon naa fees néeg ba ba daanaka place bi sëñ bi toog rek moo fa des sëñ bi ne ko seex mu ne ko mbàkke mu ne ko xasaay di dama bëgg nga rawaleel ma ko wax jullit ni man man koo jariñoo ndax li ma fi bind day bari na lool waaye li tepp suul naa ko lenn def naa ko ci géej gi lenn dama bëgg nga rawaleel ma ko mu andi xasaay yooyee bi muy dëkkee daal di koy moolu jébbalaat ko Sëriñ Tuubaa muy liggéey boo xam ne ba tey man nga ne moo ko jëkk def ci islam mu yaatal xasaay Sëriñ Tuubaa yi ba yàlla def sëñ bi ñëw bis bi am bis bi nag jàpp naa bu amutoon ah, daanaka diine senegal moom mën naa am dana xaw a naxas dana xaw a naxsaay lool ndax ku ne xam na ne lépp ñu ngi ko am ci ñibbi Sëriñ Tuubaa gi kon bis bu mat a fonk la taalibe yëpp ko bokk murid yépp ko bokk kon nag ñu ngi soññ mboolem taalibe bi faay mën a nekk rek ñu màggal ko ci jàng alxuraan jàng xasaayit zikrullah salaatu ala nabi ak togg ay benn joxe la wacce lay subhaanahu wa taala lii rek ci lañ nekk ci la ko maam sax doon màggale njaboot gi fi ci lañ koy màggale ba tey ji noonu lañ koy màggale yéen nag ñu ngi leen sant ci taxawaay bi ndax liggéey bi rafet na te am na loo xam ne bu yaatoo yéen la kon yaatal googu it liggéey bu mag la ci yéen maasa allahu taala bari na ñoo xam ne tey lu bari ñu ngi koy xam ci sëriñ bi te ci yéen lay jaar kon yàlla leen yàlla dëgëral yàlla leen yàlla sàmm soo amee beneen laaj boo ci laaj maasa allah dañ sawar ci tontu ko waaye daal lu ñuy xam ne rek mooy bis bi daal mooy bis bi bokk na ci bis yi gën a màgg ci ñun kon ñu ngi ñaan lépp luñ ci def it yàlla nangul ñu ko ak Yonent bi ak Sëriñ Tuubaa ak jëmmi Maam Sa Anta di leen sant leen gërëm. jërëjëf kon uh, mu mel ni dañuy Sëriñ Tuubaa dafa junjoon màggal gi ijaal rujuu'i ila qawmi saadatana wal takfina yawma jamiil xalqa nirana te bis bii la tombeel uh, mu mel ni it Daaru dafa am. topp wu mu topp Touba waaye tamit statut Daaru Salaam suñ suñ Touba da ko yemaleeg statut Touba ndax Touba Daaru Salaam daa bëri na lu mu koy tudd di leen méngale waa Daaru Salaam it bañ na ko ba ñoom it ni ñu toppee ñëpp dañ leen di ñoom ñoo njëkk a jël seen addiya boole kooku almet xamul na ko sëñ bi nga jël ko taal ko ak nga tabax ci jumaa ñoo yem képp ci ñun li ñu ñor rek mooy yittey sëriñ bi Eh, diggante Darou Salaam ak Touba ak toppiinu Darou Salaam ak Touba lu mu ci mën a barkeel. incha eh, daanaka dañ koy doore ca loo xam ne mën nga ne maam sant moo ko njëkk a def mën nga ne dëggaatuñu ko ko def muy ànd koo xam ca saa dañ naa sa mag la ngeen bokk benn waajur. muy dox nga jiitu ko di ko xalagul ci am ñax ak i dëkk ak i bant ngir bañ dara laal Sëñ Tuubaa loolu gëm naa ne bi ñu ne def na ko déggaatuma ko ko def ci àdduna kon taalibe gi moom daanaka dana yomb ci déggéen foofu la foofu la tàmbalee mm-hmm. moo tax nii lañ mën a doxe mm-hmm. noonu lañ fas yéene doxe mm-hmm. lenn li te dolli ko mooy Sëriñ Touba dafa wax ne euh, Daaru Salaam ak Touba mooy ñaari dëkk yi gën a tàdd fa moom te Daaru am jagle goo xam ne sëriñ bi moo ko joxal boppam ndax daana jóge Touba di ñëw fii di def xalwat di delluwaat kon loolee muy jagle goo xam ne ba tey sëriñ bi joxoon na ko dëkk bi ñu wax ne it sëriñ Touba nee na fii laa njëkk a gis rasulullahi sallallahu alayhi wa laa njëkk a gis Seydina Jibril fii laa njëkk a amee sama sama moomeelu bopp fii laa njëkk amit njaboot gu taxaw fii laa njëkk fii laa toogit ba mbóotoom Tuubaa fekk ma fi ndax yàlla da ko ne ñaari mbóot benn bi muy Daaru benn bi di Tuubaa amin bi daaril fata Touba li maskanihi daaru salaami kama bil makka wal madina kon dafay mel ni sëriñ bi mi ngi tëkkale di ñaan yàlla mu defal ko Touba ak daaru salaam mu mel ne makka ak madina kon defe naa ne loolu doy na ci kon luñ la ci jox ci jawaab ci loolu taalu bi jawaab bi doy na la maam sax li ñu ko defal sëriñ Touba te déggaatuñ ko ko def muy jiitu ko di ko xalangul def naa nit defal ko magam ah, bu jàllee moom déggaatuñ ko. ok jërëjëf kon mbokk yi ñu daloon sëñ maxtar moom sëñ Mbàkkeem sëñ Mouhamadul Mamoun di ko xamee na ni liggéey na ci Daaru Salaam loo xamee ne murit yépp mën nañ koo jariñoo ndax eh, liñ naan mujjewul puso bi mu réer yar na ay rakkam taxawu leen ba tey ji ñu xam seen bopp xam li leen war seen digganteeg seen borom waaye xam li leen war seen digganteeg seen i seeni i seen i seen i nawle waaw di wax rek ne diggante sëñ Mouhamadul Mamoun ak sëñ Mbacke ci mën a baaxee moom loolu it xam naa dana yomb leeral ba ci jiitu mooy mm, sëñ Fallou wax nañ ne dafay mas a ñëw. nee nañ ne ko dama bëggoon sëriñ muy sëñ Mbàkke ne tudd doom yi ku fi bàyyi ko na ko taxaw lépp loo xam ne ateb islaam la nanga ko ko jëbbal ndax yàlla rus na ko ba mu ko wax mu def ko te ma ko nettali nee na bi ko sëñ bi waxee ba sëñ fàllu génn koo xam ne moo féetewoon sëñ Mbàkke ak mag mi ngi toog nee nañ mu ne ko kon de ñuy jiite ñaari rakk yu yor-yor ndax booba tisbaar jotugul ngir ñu barkeelu ci waxe sëñ Fallou ji teg ci comme jiite yàlla dana yàlla rus na ko ba comme jiite yàlla mën na ko jégal nee na sëñ bi jiite ñaare rakk yu tisbaar nee na man ci laa bokk ñu ko julli ak ka nga xam ne moo ko féetewoon ak mat yàlla dogal ne mu toppoon sëñ sëñ Mouhamadul Mamoun toppin woo xam ne. ba la ko mag ñi natt li yéeme woon na lool sax ci topp ndax mbub mu ñu gom sax mësu koo nangoo sol bu ne ko sëñ bi la woo rek mu summi mbub mi wala mu jox koy taali bu ñuy weñaat ko ba gom gi dañ mu doon nangoo dem ci sëñ bi du ma na ko toppeen woo xam ne mbayam daawul xam nu mu toll boobi la daa ñëw jëbbal noonu sëñ Modou Mamoun waaye ni wax na ko lu bare bare bare bare mas na ko sëriñ mu naa ah, mu ne ko danga dañuy wax ne sàmm mënul kanamam man ginnaawam waaye man mi de sàmba mu man kanamam laa man sama ginnaaw bis bu ma la wanee ginnaaw da nga xam ne mën naa sama ginnaaw loolu bokk na ci la nga xam ne wax nañ ko ko ci ay cant ak i ngërëm ko doon jox boobu bokk na ci it xam naa ne wax nañ ne mboolem luy baatin li ci ëpp eh, lam ci xam ci sëñ bi ña ko ci xam bëriwul ndax li ëpp ci mbiri baatin moom la ko daa def loo moom moom sëñ moom la ko Cheikh Mouhamadou Mamoun doon defloo te ku ne xam ne ne sëriñ Modou Mamoun eh, am na ci sëriñ Tuubaa loo xam ne fekk ko ci yombul ndax fukki at ak juróom-ñett yoo xam ne mi ngi ko nekk ak sëriñ bi menn moom la sëñ bi daa tëju mel menn moom mooy nekk ak sëñ bi ñu tàqale ko gu moom ci gànnaar te jolof ba ci njaareem fukki at ak juróom-ñett defe naa ne nekkoo ko sëriñ Tuubaa am bu guddee sax bu demee ba nga xam ne fatuma des mel na mu yow yaay nekk nga moom defe naa ne loolu yombul ci sëñ bi wax nañ ne nee na fekk naa sëñ Tuubaa mel melokaan wu ne te mësee su ko xam te man wax nañ ne nee na mas namaa ñëw fekk sëñ bi néeg fees néeg bi dell ma ma ne teg àgg suuf nee ma toog bee suñu Mouhamadul man lan la woon ma ne ko Mbàkke dama doon yëglu loolu bokk na ci li nga xam ne sëñ bi wax na ko ñëw fekk sëñ Tuubaa fees néeg bi dell nee na mun a tekk àgg suuf tuuti sëñ bi demaat delluwaat ci melokaan doomu aadama mu ne ko Mouhamadul Mamoun lan la woon mu ne ko Mbàkke dama doon yëg wax nañ ne sëñ bi mas na koo woo ne ko xam naa ni nga taxaw ak man xam naa fi nga ma féete waaye tabaski bii kat damaa bëggoon ñëpp dem julli jël seeni baay ma bëgg na nga dem ci seex jullee jëfa bi ko sëñ bi déglee loolu mu jékki-jékki di jooy sëñ mu ne ko ah, lan la woon mu ne ko Mbàkke man day jàpp naa ne amatuma bàyyi ci àdduna ko dul yow ndax man day yaay sama lépp yaa ma gënal bàyyi yaa ma gënal yaay yaa ma gënal lu man doon ci àdduna te am naa ñu yawante loolu bàyyi la fi da dem ci seex mii ngay wax leen sëñ Tuubaa foofu la aloo ne ko njugal ko dox sa digg ak seex rek ko naa daal di jël mbubbam jox ko naar ne ko nañ ko ci ñaw lu mu tabaski loolu am na ko ci gànnaar ci sëñ bi boobu menn moom moo fi des ci sëñ Tuubaa moo tax dix-huit ans yi ma la wax ne tàgguwut ak sëñ bi moo waral loolu tabaski googee sax nga xam tey bu ko ab bu demoon rek mm-hmm. waaw waaye nii la demee wax nañ ne it nee na ànd naag sëriñ Touba benn guddi ñu dox ci sar ba yàgg sëñ bi ne ko toogal mu toog mu rëdd wër ko doxaat ñetti jéegu ñeent takk der bi tàmbali julli sëñ bi nekk ci li muy nekk ba fajar jege mu ne mu mu mu jóg mu jëlal ko der bi mu ne ko Mouhamadul Mamoun tey de sama borom jox na ma martaba moo xam ne nii nee na ma bu la ko ràngoo jox ko ci seen njaboot kenn waaye defe naa ne day kuy rañaan du fàtte ko muy àndal. Mm-hmm. mu ne ko mbàkke wala fi wax nañ ko mu ne ko ra euh, marre ba boobu jox naa la ko bis nekk loolu nag buñ ko doon lim dana yàgg. Mm-hmm. dana bari mm-hmm. benn par benn te lu nekk dafa ko liggéeyal sëñ Tuubaa bi sëñ Tuubaa jox na maam sax daa def rek lu ko sëñ bi wax mu ne ko bind ko <laughs> ndax xam gum xam sëñ bi waaw waaye moom itamit mën nañ lay wax ci sëñ bi. di gëm ak Serigne Touba lu bari loo xam lu ci nekk maanaam daraja ak martaba ba ko Serigne Touba jox te ñoo ci fekk bëriwul. waaw sëñ daana wax ne dafa noppi de gore day waaye kenn àggu ci wecc sëñ bi. lam ca xam kenn xamu ko ci. sëñ Fallou mu baax mi daana ko wax. Mouhamadul Mamoun Sidina dafa dafa dafa dafa noppi de waaye kenn àggu ci wecc sëñ bi lam ca xam kenn xamu ndax ñoom dañoo xam sëñ te li muy yàgg ak sëñ bi kenn ku ko yàgg ak sëñ bi néew na am néew néewaan nga dégg loolee sëñ Modou Mamoun amoon na ko ci sëñ bi sëñ Mbàkke nag xam loolu ci sëñ Modou Mamoun tax mu topp ko def ko bàyyi mm-hmm. ba yàlla may ko ci lim ko ci may tey mm-hmm. ah, defe naa ne attu sëñ Modou Mamoun mm-hmm. ku ne xam ne sëñ Mbàkke la ko fa yàlla may mbiri baata ni li ci ëpp da ko daa def loolu ah, sëñ bi ci boppam man toog naa mu am lu mu wax ci diggam ak sëñ Modou Mamoune te la neexut wax loolu wax na ma loo xam ne nii lu yéeme yéeme la ci diggam ak sëñ Modou Mamoune waaw joxal na ma boppam dara it ne ma sëñ Modou Mamoune moo ma ko joxoon yooyu itam jox naa la <laughs> mu mel ni su euh, euh, mu mel ni euh, dañuy gis ne Tandiaye defoon jébbal mam Cheikh Anta Serigne Touba. dafa mel ni loolu dafa dafa rogalaat ba ci maam Cheikh Anta bi muy jox suñ Modou Mamoun Serigne bi laa mel ni loola mooy wéy mu mel ni cofeelu maam Cheikh Anta ci Serigne Touba da koo wàllu suñ Modou Mamoun ba muy dem noonu noonu la doon doxe mu mel ni tamit faggu ga sëñ Tuubaa fagguloon maam Cheikh Anta it mel ne da fagul faggul maam moom xam ne moom daa am ci maam Cheikh ba pare faggul yëfi boppam ci sëriñ Tuubaa waaw waaw. fi mag ñëpp fi mag bu tibb laa tibbe mhm. mu noppi lal bi teg ci mhm. loolu mooy mhm. fi mag ñëpp tibb bi ba noppi donn borom lal bii ma toog waaw mm-hmm. def naa ne kon daraja mën a ko weesu ndax donn borom lal bi mu toog rek doy na waaw fa mag doy na mm-hmm. ah. te nee na ñaar cëri boole naa ko ah, loolu daana ko wax ci làmmiñu bopp ah, daana wax naa sëñ bi may na ma day lu bari ci yoonam bii waaw mm-hmm. loolu daana ko wax daana ma wax naa nee na sëñ bi da ko ne dénk naa la alxuraan naa la togg ñam joxe dénk naa ne joxe sa alal ngir yàlla li wàcc lay subhaanahu wa taala nee na sëñ nee na ko Mouhamadul Maamun mu ne ko Mbàkke mu ne ko xam nga jaamu yàlla gi seytaane mënut a yàq te amul benn yoon bu mën a jaar ba yàq ko mu ne ko Mbàkke déedéet mu ne ko togg ñam joxe li wàcc lay subhaanahu ak jox sa alal ngir yàlla mu ne nag loolu dama ko donn ci borom lal bi ma toog sëñ Tuubaa dénkaan hmm. kon du ma ko bàyyi ku ne xam na eh, nim meloon ci joxe ñam ku ne xam na nim meloon ci joxelalam eh, loolu ngay wax sànq ne moo njëkk joxe million ci yoon ci yoon wi mooy bi sëñ Fallou toogee di sëñ Touba mu jël benn million ak fukki junne mooy buum gi koy takk mm-hmm. boole ci almet def ko ci wëlis daal nañ ma ko yotal sëñ Fallou sama sang bañ ko indi jox ko sëñ Fallou sëñ Fallou lii lan la ñu ne ko lii day addee sëriñ Mouhamadul Mamoun la ñu ne seexante ci sëñ Touba mu ne lum doon ñu ne ko mi ngi toll ci million ak buum gi buum gi ko takk ñaa nañ mu ne waaye Fallou da daa dégg million waay tey ñu ne ko cëpp ne ko yaa ko moom almet gi lu ci Seydina jublu ñu ne ko ah moom Seydina la fa daa wooy danaa danaa ko Seydina mu naa ko sayxu naa saa ñëwee ci sëñ Modou Mamoun mhm. danaa Seydina Seydina mu ne ko sayxu naa sayxu naa mu ne ko almet loo ci jublu lu ci jublu ñu ne ko ah Mbàkke loolu ko mu jël téléphone bi woo ko ne ko waaw maa njëkk nangu mi la ci islam waay mhm. te xol bu laab joxe ko muy addiya maa ko njëkk nangu ci islam waaye yaa ko njëkk joxe ci islam seet na almet gi loo jublu mu ne ko mbàkke ab taalib bi du joxe addiya di lijjanti fu bay def bu la defal ci jumaa ji bu la neexee mayal bu defal sa bu la neexee taalal ab bi du joxe addiya du lijjanti du lijjanti fu bay def mu ne ko waaw ah, oh, nii rek la mën a demee ba ku baax ki jógee di dem sa bàyyi njëkk jëkk topp ci yeneen toppi dépp door caa topp ba bam nuy ak yow ci toppi de lañ bokk mu ne ko ba ku baax ki njëkk jóg muy Sëriñ Tuubaa sa bàyyi njëkk jóg topp ca yeneen toppi di yëpp topp ca ba man mii ak yow ci toppi de lañ bokk <laughs> kon ñëw na fii ci moom it nekk ko Sëriñ damaa digal man ma ma expecté ma ma ma expecté ma expecté la ma ñëw expecté fii fanaan fi ne ko waaw say kayit yëpp yëpp say yëpp leer na lépp man waaw bii sëñ Tuubaa damaa digaloon ci yoon wi waaye fii laa ko doon teew waaye lépp lépp sa lépp sëñ bi nangu na ko loolu sëñ Fall wax na ko digg ma ko sëñ Fallou buñ ci doon wax tey dana bari lool lu ñu seqoon ndax ñoom dañoo bokk lépp ànd lépp benn àll ak sëñ Fallou màggee moom la ko jiitoo wax nañ ne bokk dañ nekk ci kanam sëñ Touba sëñ Touba toog bu yàgg mu yéemaat yàlla daani yéen ñaar ñi seenu dund ci seen loxo la nekk lu leen neex rek moom ngeen des ci muy duñu bokk an même ko màggi moom la ko jiitu wax na ni bi mu ñëwee ci moom bi suñ fàllu nee ci waajtaay ñëw ci moom da ko ne mbàkki la ñu sa bàyyi waxoon des na nga xam ne kon li ñu bokk bari waaye moom ak taalibeem sëñ Modou Mamoune ak pas-pasam ci sëñ bi xam gum ko xam dafa taxoon ba képp koo xam ne dugg na fi lépp lu mu ko fekkee rek da koy jox ba mu jeex moom noonu la wax nañ ne soxna su gaaw mas na fee ñëw am lu mu ko wax waaye mboolem lu mu ko wax lu ci ne fukk la ko def jox ko ñu ko lépp sa bàyyi ko moom <laughs> waaw moom foofu la nekkoon waaw lépp luñ ne sëñ Tuubaa rek moom amul lanam lu koy fekk ak li muy li mu ak cër yi mu am ci sëñ bi li muy bari bari bari li ko sëñ bi may ci boppam mu xam ko li muy bari bari bari waaye ku la gën a xam yàlla gën la ko ragal sëñ Touba yàlla da koo dimbalee mu am jëkk ju jum niroo yàlla doomu dem loo ko gën a xam gën koo ñeme waaye yàlla loo ko gën a xam gën a ko ragal sëñ Touba nag ku la gën a xam gën la ko ragal <laughs> macha allah. jërëjëf kon mbokk yi loolu mooy eh, li nga xam ne ni jëlee nañ leen ko fii ci kër Serigne maxtar mu Serigne Mbackeem xanaa ñu jox ko mu kàddu yi tàggatoo yi rek xam na ne fekk nañ ko ci xat-xat. ak euh, yitte yi te nit ñaa ngi toog di xaar waaye mu may ñu ci boppam yi jataay bi euh, di bàyyi rek mu kàddu yi tàggutoo yi. waaw incha xam naa delloo sant delloo gërëm mboolem mbokki jullit yëpp mbokki taalib yëpp. rawatina yéen ñi nga xam ne yéen ñu may lii ñu mën koo jàllale te lañ ciy jublu rek mooy mbokk taalib bi mën cee jàngat. xam ne sëñ Tuba du mbokk sëriñ Tuba moom day koo xam ne loo am ci moom rek yaa ko yaa ko ndax ba mu waxee ne aw ma rakk aw ma doom aw ma jarbaat li fi nekk jébbal ak nangu liggéey moo koy maye ku ko def nag maay sa mag maay sa bàyyi maay sa nijaay loolu sëñ Fallou ci làmmiñam laa ko dégg mu nettali ko waaw bande yaa ngi fi mu ne sëñ Tuba da ko woo sëñ ma sàmba sëñ ma Roqe ba sëñ Modou Moustapha ne leen xam ngeen lu fi nekk nee na rëdd ñett rëdd ci suuf xam ngeen lu mu jublu ñu ne ko déedéet mu far benn aw ma rakk far beneen aw ma doom far benn aw ma jarbaat sëñ Fall ne ñu ne tekk di ko xool ba yàgg mu teg ci ne li fi nekk mooy jëpp la ak nangoo liggéey ku ko def maay sa mag maay sa bàyyi maay sa nijaay ñoom nag xamoon sëñ bi moo tax leneen ëpp loon ci sëñ bi moo di taalibe sëñ boo dama mun foofu la tolloon mboolem njaboot sëñ bi foofu lañ nekkoon nekk taalib sëñ bi rek kon taalib boobu daal la ñuy soññi bëgg ko dégg kàddu yi ak cër boo mën a am ci sëñ bi rek na nga jaay ko jënd ko taalib bi ci sëñ Fallu rek xam loolu rek moo ñuy jëriñ fii ak ëllëg dara nañ ko am ci sëñ bi loolu ak taalib mbokk geeg fii ni nga demee ci moom lépp baax na waaye li ci ëpp solo mooy ñu jaay lépp jënd ko taalib loolu rek mooy kàddu tàggatoo yi ñu fas yéene nekk taalibe fas yéene góorgóorlu ci bëgg-bëgg sëriñ bi lépp loo xam ne xam nañ ni rek macha allah dana nekk loo xam ne mbégte lay doon ci sëriñ bi euh, ñu jéem sax ci loolu te nekk ambassade sëñ bi fu ñu nekkit fexe ba ko bëggoon sëñ bi bëggeel ko yokku ku umpale sëñ bi it ah, buñ jaxasoo ak moom mu bëgg sëriñ bi. loolu moom ab liggéey la boo xam ne njaboot gépp war nañ caa góorgóorlu ko def taalibe war caa góorgóorlu waaw xam ne ñu bari umpal lañ Sëriñ Tuubaa te ñooñee ñaare buñ jaxasoog yow nga mel na nga war a mel tegu fa nga war a tegu ñaare umpali googu mën naa denc ñoom ñu bëggoon sëñ bi loolee dana a cofeel gu yokku kon yàlla ñu yàlla fayal sëriñ bi waaw yàlla ñu uh, yàlla def ñu di taalibe yàlla ñu yàlla nangul lépp loo xam ne ñu ko jëf ci sëñ bi te yàlla may leen yéen tamit wér yokk leen liggéeyu islam bi ngeen nekk yàlla gën leen caa may ndam ak tawféex lépp lu ngeen ci yëngu ak lu ngeen def yàlla ko yàlla barkeel bis yàlla may ñu fekk at yu bëree bëree bëri ba li ngeen ci yéene lépp ngeen mën koo def wa ma zalika ala lay baasis wasalaamaaleykum wa kon ci caméra bi mu nekkoon Serigne Alassane Sané ci ndimbalal soxna jaara seen mbokkum taalube Cheikh Samb e, ci ci ci ci kàddu gi di leen jox digub daje ci kanam tuuti wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.